déglu leen aslëf bés bi le jour yéenekaay yi ma ngay wax ci dossier gu bees bu tàbbiwaat fii ci réew mi lu ñeel wàllum menace de sécurité maritime gi jamono ji nag armée maritime baa ngi jànkonteel ay jafe-jafe yu lay wax te ay jafe-jafe yu jéggi dayoo ba tax na yéenekaay bi daal di ko tuddee la mer des batailles yéenekaay bi di xam ne rek ne armée maritime gii ma ngay jànkonteel ay jafe-jafe de am na agent yoo xam ne rek dañu daal di ci géej gi kenn xamul fa ñu nekk laa wax amoon immigration clandestine gi ba néga ni tey më nga xam ne moo di armée maritime gi ñu ngay nekk ci coono coono dàkk laa lay wax la yaakaaroon ne na te dàkkagul ndekete mooy coronavirus gilée jamono ji rek 34 recensés laa lay wax mbas maa ngi ci biir réew docteur yëpp daal dinañu tàmbaliwaat jël ay kàddu di xam ne rek covid 19 ñëwaat na ci Sénégal waaye bii baa yaakaar naa dootul covid 19 de xanaa covid 23 de wala covid 24 ak lu mën a xew yéene kaay bi dañu xamal ne boo moytuwul la xewoon dina xewaat moom moo di entreprise bëggee coronavirus mu ne musiba am musiga bi bëri Sénégal te mënuñ ko utal saafara ba léegi Le Quotidien yéenekaay nañu du lenn du autoroute à gannaaw jamono ji rek ñu jàppoon autoroute am autoroute bi moom solution la wala problème secrétaire général Déphase ga la mu xamle moom moo di ña koy dawal ñu si bëri amuñu permis te boo amul permis loolu rek nga mën a moo di accident yu bëri rek nga mën indi yéenekaay bi nga xam ne rek ak lu mën xew moo di waaye te fan dugg laa lay wax te maa ngi sàkk waa conseil constitutionnel ñu daal may génne waat li nga xam ne moom moo di sama treize la mu ca teg yéene kaay bi dañu xamal ne kii di Mary Teuw Niane la mu wax moom moo di na ngeen ma réintégré waat ci fichier yi laa wax falaa yem nag fa ñëpp waroon a yem tëbbati Sud Quotidien yéene kaay nee nañu jamono ji lii di li nga xam ne moo di élection 2024 yii lañu xalaat ndax dina am ndaxte kat jiitu réew bi waxoon na ne élection dina am transparente ak crédibilité waaye nag jamono ji la ñu xamle moom moo di bu dee nii la conseil constitutionnel di doxee ma ni candidat yi ñu ci génne yépp daal dinañu mer te boo moytuwul élection yi yàqu moo leen gënal élection yi am ndaxte jàpp nañ ni conseil constitutionnel la mu xamle ak la muy def yépp xam na ko ñoom ñooy fal ñoom ñooy bumbi ka nga xam ne moom moo di Aminata Touré ma ngi accusé waa conseil constitutionnel te naan yéene ko def de ndaxte kat man samay fichier motoon na bu yàgg kon lan moo waral li nga xam ne moom moo di fichier introuvable ma ne di ngeen ko a génne te faf dugg ca kaso ga ko yéene kaay mag ñu ko wax nee na nañ ko ngir bëgg ko rey gannaaw ba ñëpp fàqee xoo jëbali ci kër ga ngir attaqué ko ay kii tamit dóor ko bay bëgg dee ci la gendarmerie daal di ñëw waaye nag jamono ji li nga xam ne moom moo di monde naturel ba ñu daal di xamle loolu dañ ko daal di rejeté de nee nañu moom mais moo ko tey lañu tey ak lañu teyut le mandat yéenekaay nañu boo seetloo ba seetloo xam ne kat mbir mi dañ ko tey ndaxte conseil constitutionnel dafa mel ne Amadou Ba rek la bëgg a sauver ndaxte ñi nga xam ne ñoom ñoo doon xeex li nga xam ne moo di système bii système bi ne daal dinay tàmbali xeex leen ka nga xam ne moo di Bougane Gueye Dany Ousmane Sonko ñaan ñoo ñi nga xam ne njiiti réew mi Macky Sall ñoom rek la ragaloon laa lay wax te itamit ñoom rek mënoon téye Amadou Ba jamono ji nag mu mel nii xal nañu yoon ba de le mandat yéenekaay naan présidentiel boulevard ouvert pour Amadou Ba Walf Quotidien yéenekaay naan ma ak lu mën a xew waa benn bokk yaakaar jamono ji ñoo ngi reculé laa lay wax nekkat candidat yi gënoon dangereux fi mu ne nii fol nañ leen yéenekaay bi di xam ne rek waa conseil constitutionnel est duñu leen boole conseil rek sénégalais yi benn yaakaar laa lay wax bépp yaakaar bi ñu amoon ci conseil constitutionnel tegg nañ ko fële yaakaar gi ñu mën a am yéenekaay bi ñu xamal ne moom moo di Modou Lo ndekete tekki tekkaaram gi yépp Modou dafa bëgg a bàyyi làmb ma nga yóbbaale kuroon nga de te ngeen a bu fekkee da ngeen a amul ku koy daan ngeen boole mag moom ah combat la de mbokk ñu yendoog jàmm